sax parce que bari na ñoo xamante ne si des fois dañuy guddee wàcc. Mhm. te bu fekkee yow jigéen nga yow da ngay dóor waar comme ni sa jëkkër di dóoree waar. Mhm. fajar gi muy xëy dem fajar googu ngay ngay ngay ngay dem yéen a génnandoo waaye yaa koy njëkk ci kër gi. moom moo lay mujj ci kër gi. Mhm. waaye dama ne la ji ab jeeg laa wax. jëkkëram dina ñëw xaaja guddi. fekk macha allah reeram tegu jus ba mu war a naan tegu ataaya jaa nga mu teg ca ànd ba. defar na néegam macha allah. Mm-hmm. bu jëkkëram ñëwee lu mu nelaw nelaw nelaw na jóg dugg ci salle de jug ah, <laughs> dugg ci salle de bu roosu. Mm-hmm. tiital kanamam. Mm-hmm. sël mu say nelaw naaw nga jël talk laal ci sa kanam jël golos bu nim def ci say tuñ. jàkkaarloo moom te naan ko ndax reer nga. kese. bu set. daa am fuñ koy xame jeeg bu set dañ koy xame ci buntu këram ak jeeg day bale buntu këram bari na jeeg joo xam seen biir kër la ñuy defar bàyyi ci mbedd mi. loolu la maman Jojo Mbaye doon wax fii benn lënd boulevard du mhm. ne guddi. mu des fois nga dem ci kër. Mhm. wallaahi boo nee ximmet xool ci kaw da daw lënd. yaa day kii. ma xam nga lan la wax ak rido yi rido yi takk. day kole. gis nga mhm. tati lan la wax sama yaay sama yaay danaan ma. waaye dama naan ko yow yaay lan moo am ma dama koo sonal ndeysaan man dama ko def comme sama mag mu ngay tooñ ma ne ko nga jàpp ni ñi ñaa ngi defar nga jàpp di taqalaat mu ne xoolal lënd yi xoolal lii xoolal lii jël bala ba di wër mm-hmm. te pourtant am nañ koo xamante ne mu ngi si kër gi di defar mm-hmm. mais taxul mm-hmm. du ko bàyyi ko bàyyi kenn da koy toppatoo wàññi fa lay nekk danga ko raxasal légume ba mu set defal nii di ko jàppale te loolu si set la bokk kaw si te yaay génn si buntu kër ga. di ko lomb xetu cuuraay bi di gilli. macha allah cuuraay bi di man je me su ma duggee tey ji sama su ñi nga xamante ne ay jigéen lañ. surtout mm-hmm. ay xale. Mm-hmm. parce que léegi xale yi tamit koo qu'on puisse dañoo xam lu baax te defatuñu dëgg la gis nga léegi ku fi dof. Mm-hmm. te fekk na yow yaa ngi am ñoom docteur yu jéeg ji toog. yaa ngi am ñoom maman Jojo Mbaye toog. Mhm. yaa ngi am ñeneen ñeneen toog. Mhm. Mhm. boo xamul. demal nga laajte. YouTube baa ngi fi. mais rëy am na. rëy am na mais YouTube baa ngi fi boo rëyee. nga tiim sa téléphone. tëju sa biir néeg nga bind. xool benn par benn ñu koy defee. gis nga góor suñu surtout damay ñëwaat foofu parce que du jigéen ñi kese. am na góor ñoo xamante ne bëgguñu ku leen defal. mais yow jigéen yaay naxtaan ak ñoom. dëgg la surtout ça. gis nga jigéen dafa am comportement bi muy am. wax ju neex sarax la. Mm-hmm. del naxante ak moom. Mm-hmm. góor ñi ñu sangu-sangu bu set. Mm-hmm. xalaatuñ ko sax. ñu ngi may seetaan taluñu ko. dëgg la lan lañ stress moo leen di bëgg ku si am jëkkër ku si am ku si am jabar ku si amul jabar si yem. mais dimanche bu jotee xëyoo sa jëkkër xëyul jëlal sa citron ak sa li nga xamante ne mooy euh, bicarbonate. nga jaxase ko. sa jëkkër la. toogal ak waxtaan ak moom nettoyer suuf gi ba mu set wecc boo paree nga jox ko li nga xamante ne mooy benn pommade bu bu sedd bu simple cheru mhm. ci pharmacie yi koy am mhm. duy ko toog tëdd mhm. soulagement lay am déjà moom en personne man dama si am sama benn xarit boo xamante ne mois bu jot dina si jël ñaari dimanche yoo xamante ne mooy sang jëkkër ji. Mhm. kaw ba suuf. Mhm. loolu ku rëy du ko def. Mhm. te pourtant yow boo ko defee sa bopp nga ko defal. te loolu ku jég bu tayal. du ko def. sànq maa ngi lay wax naan je pas d' accord si jigéen ñi nga xamante ne. jég bu jógee wala du ko def. dama man d' ñi nga xamante ne bàjjan. ab jeeg day bokk ak jëkkëram sang. <laughs> dañuy xëy seen jëkkër yi xëy di liggéey yow xëyoo gontoo. femme au foyer nga on peut dire. wala yaa ngi am sa boutique à place. Mm-hmm. yow amoo koo xamante ne yow da ngay xëy dem liggéey boo ñëwee fii. Mm-hmm. ak benn euh, euh, euh, maxu ne dama lay dagg parce que da nga tardé. Mm-hmm. stressé woo sa nga yor. yaa moom sa bopp tu es ton patron. dëgg la yow jëlal sa temps boo xëyee. jugal tàngala sa jëkkër dox. préparer ko ndékkeem man lu ma gën a bañ mooy. jigéen góor boo. góor ci mbedd. góor buy génn këram. te doo ndékki te ñaa ngi fa bàyyi jabar sa jabar joxu la nga ndékki. Mm-hmm. suñu tayal rek. loolu man je me dis que. bis sama jëkkër. day ndékki de. Mm-hmm. dem ndékki sa biir kër. loolu da yaa koy lekk ndax biir góor gu fanaane jongama ba bët set. Mm-hmm. bu xëyee day xiif. day xoos maamu xiif. góor gu fanaane jongama ba bët set. bu xëyee biir ba danaan wóotu dara du ca ne. teel a la yeewu fexe nag defaral ko ndékki. petit déjeuner au lit. waaw kay. tàngalal ko ndox mu teel a la yeewu. génneel ko yore yu set ne ko solal lii mu ndékki. gis nga commencé est ko gis nga non. mais dañ ko war nga koy commencé mais du eggale di maane. mais mais mais wax naa ko fii. Mm-hmm. nee la sëy du commencement kese. continué jël sëy dangaa jóg pour jaamu yàlla. Mm-hmm. sëy da ngaa bëgg yow li ngay def lépp mu feeñ ci say doom. am mm-hmm. ñun seen mais doom yi mënuñoo màgg ci ñaari at ñetti at. damay tegal seen papa kon faaw nga nga continuer di bëggal seen te góor ñi tamit ñàkk ñu xel. Mm-hmm. yow boo koy toppatoo. nga xëy tey benn jour biddanti mais du la yee. fekk tàmm na li nga koy defal xam na ko moom mooy jur ne ah lii la ma doon defal. nii def nànk buy dem dina la sëgg sa noppi ne la chérie wala bébé maa ngi dem bàyyi la waat sàngaar la tëdd nga nelaw. Mhm. Oustaz Alioune Sall da ko doon daf ma ko doon wax keroog ba ñuy def émission. Mhm. Mhm. bu ñu demee tey jii nii ba xale yi ndaw yi xam lu baax. masama ak jeeg yi nga xamante ñu ngi seen biir kër. naan sama doom laa tal sama li bis boo nee sa doom nga tal wala da ngay daani doole di teeli teeli. bu gisee bu gisee xale bu ndaw. bu gisee yi waaw ah, ah, nee ah, rek su ma yëgoon bu sëy see na ngay palpité di <laughs> xatt di sonal loo koy defalaat sax. du ko gis du ko gis parce que danaan carrément dangaa nekk di roy danga nekk di di di di di kii di profito gis nga maane subaana ma jeeg bu salte mm-hmm. dama cee gisoon jeeg boo xam ne dafa salte lool mm-hmm. salte ba ba moom ay kaasam ak i ndabam mm-hmm. day oos lépp dafa am dafa am ñoom danoo am seen xet moom ak jëkkër jeeg doomi mais bi yàlla dogalee jëkkër ji am deuxième femme dafa mel ni xale buy doog a judd. dafay mhm. mel ni kuy doog am jabar. Mhm. te ab jéeg la takk wuranjaan contemporain. ah waaw xoola mu defar ko. ay yéreem dana set. Mhm. du froissé. colu chemise am dana set. Ah, waaw poche tubéy yi góor da nga koo war di seetlu. di xool ceinture yi muy takk. chemise bi bu tollee ko sànni teg fee tooy. da nga ko war di xool. gis nga nuyoo ku ne nga nuyu ko ku nekk ak loxoom la ca ne mm-hmm. day dem ba sa loxo gisoo bala nga ko xam nga génn liggéey wàcc ñëw ñëw sa biir kër bala ngaa def dara nga raxasu ba set nga xool ndox mi ni muy tilimee mm-hmm. léegi ndox loolu noonu mm-hmm. mooy tax chemise bi sa chemise wala sa sa say poche di tilim rebooree la fekk wala sa colu chemise parce que euh, nit dafay tàmm di laal colu chemise am ak di laal léegi góor jigéen dafa war di xool loolu lépp. da am seetlu. di xool sa jëkkër dàll yi muy sol di xool sa jëkkër gis nga lu ñu gën a ñàkkal fayda. Mhm. mooy kawas. yàlla kawas si góor. yàlla boo ko fóot ba pare nag. gis nga kawas bi setul day kambaambeer. ñi bari na ci xamante ne si ñoom ñooy fóot seen kawas wala ñu ñëw. di raxasal seen bopp sama kawas yi. mais ñu sax jeeg boo xamante ne si yow loolu da koy def gi nga kawas. si sa jëkkër sumi tay for que si saa ak caleçon bi sa jëkkër sumi tay warul yendu mais gis naa waru koo dañu ñàkkal fayda kawas dañu ñàkkal fayda kawas te kawas mooy nit parce que gi nga bu say tànk kamambeere mm-hmm. nga sol kawas def daal tànk tekki woo ko xet ga du xeeñ waaye boo ko tekkee boo duggoon fii ci ci ci ci saal bi tey ji dañu lay génne. dafa am nag ndax xet. day ñàkk te jigéen ñi dañu ñàkkal fayda kawas. Mm-hmm. gis nga kawasu jëkkër caleçon jëkkër sa sous-vêtement jëkkër fonk ko. Mm-hmm. mais di dajale ay say caleçon jëkkër. ba mu naan sama caleçon yi lan moo ci set léegi lan moo ci kii. ngay dajale ay caleçon di ko boole ak ay yére di ko fóot mën naa ñàkk. Mm-hmm. caleçon bi sa jëkkër kii kay. dama ne la mook chemise de bi nga sol tey wala sër bi nga woddoo tey ñoo yem booleel yëpp nga xooj ko ci douche ba boo xëyee nga fete ko ba mu set daal di koy weer mais dajale say chemise de nuit chemise de nuit lan lay àndal boxeur moo moo moo bi nga fanaanoo sëy ba pare da nga war a laal ñoo yem merci déglu ma chemise de mm-hmm. lu muy àndal du boxeur mm-hmm. chemise de lu muy àndal du string mm-hmm. string fu muy dugg ci taat waaw boxeur fu muy fu muy fu muy dugg. foofu rek léegi nag même bu dee da ko sol ñaari minute sa jëkkër jaxase la futti ko sax na nga ko fóot. Mhm. mais bari nag ñoo xamante ni si bu ñu paree dañ koy digalaat seen i tiroir bu <laughs> ñu di seen i armoire dugal ko fa. caleçon bi sa jëkkër di summi chemise de bi ngay summi wala wala wala ak euh, sër bi ngay woddoo. Mhm. ndax des fois nga def sër njatan gu gàtt dégg mhm. loolu noonu ngay summi. jël ko nga boole ko nga fete ko ba mu set wecc yóbbante ko naaj wi mhm. weer ko ba mu wow boo amee fer nga teg ko ci paase ko lem ko daal di koy denc mhm. waaye tere ba mu wow lii nga xam ne dama ko sol même de temps ma summi ko mhm. même ma summi ko mais sol nga ko loo sol ba pare waroo ko fóot foofu yëpp dañ koy xam ko set set dañ ciy xamit ci sa doom ndax ab jeeg mi ngi set wecc te sa doom taq sa doom bu génnee dana am xetu poqotaan sa doom tànk yi dina gaasiraan sa doom bopp bi dina dina dina am ay ay kii pàq ñeex tal sa doom doo ko toppatoo létt yi dana ràpp doo toppatoo sa doom ab jéeg dëgg bu set dañ koy xam ci waañam mm-hmm. waañ woo xam ne yow boo ne ubbit sa frigo mbóoti di daw wala waañ ba niin ba bay siit wala wala wala sa waañ boo tegee ni sa loxo ci sa frigo mu kole wala nga teg ko ci sa karoo waañ mu kole mm-hmm. gis naa jeeg boo xam ne mm-hmm. daa ñëw ci kër fekk kër ga mm-hmm. ay jeeg ne fa ni moom jeeg ba defar kër ga ba defar jeeg ja Mhm. xam nga xam nga jigéen day def. ndax ci douche la ko defaree ci douche bi la ko tàmbalee. Mhm. ndax dañuy salaamaaleykum ci kër gi. Mhm. ñoo fekk douche ba gris ndekete peinture bu marron la. pour moom douche bi dafa gris. sant mu fóotal ay doomam ba pare. jël brosse jean jël ndox ma. bomb miir bi ba mu daj. doo ko jël acide sotti ci suuf. bomb ba mu set pare jël euh, gowe poudre bi. te boobu amuñu euh, boobu amul salle de bain. Mhm. benn douche fa ne. Mhm. douche publique. douche publique bomb ba mu set jël gowe poudre bi boyal febeere douche bi ba mu wow koŋ. Ah. def ko ci douche bi keroog bi xale yu góor yi wàccee dañ doon laaj ndax dañoo peinture douche bi. te kenn peinture ko. Mhm. peinture bu marron ba ca nekkoon. moom moo ca ne mais dañoo sangoo sangoo sangu ba. douche bi ci takk. douche bi dafa gris saabu bi. ne muy xamul woon tamit ci la ko ba mu set. est-ce que xam nga doguma la la tàngaat ko. te jéeg dafa nekkoon. Mhm. bu ñu génnee doon euh, nangoo tibb lu tàng teg ko ci seen loxo. Mhm. est-ce que xam nga ne.